ñu ngi wax waxu euh, réforme mais euh, toujours ak parité bu fixe ak euro bi toujours ak France bi nga xamante ne euh, moom mooy yore garantie est-ce que wax war nañu wax réellement waxu indépendance ci côté boobu. <coughs> man li professeur wax ni wax na lu bëri. Mhm. waaw li ñu wax itam xam-xam la. waaw c'est c'est savoir académique dëggantaan la waaw économie nag moom dafa tëddee noo xam ne da ngay relativiser. Mhm. parce que économie du ay chiffres rek dégg nga ak nangam nangam ndax yi mu fi noonu yëpp man ku ma miin ci télé yi xam ne chiffres yi mu fi tudd yëpp bu ci ne contesté naa ko waaw croissance Sénégal ak. Mhm. dégg nga taux de croissance ak naka la croissance mhm. tëddee et cetera. Mhm. inflation boobu mu naan zéro virgule quatre pour cent ah contesté ko waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen. li ñu mën a njëkk jàngal loo xam ne. jaaxal na ñëpp maa ngi koy wax fan yële ci benn émission. Mhm. ma ne dafa am loo xam ne dafa rusu may wax sama benn xarit ma ne ko yow ñun dem nañ ba toll ni ñuy toll mosuñu xam ne indépendant wuñu amuñu indépendance. Mhm. waaw mosuñu ko am hymne national la ñu joxoon ak drapo mais li nga xam ne muy suqali réew. Mhm. yëpp France daf ko mos te dem ba boo déggee discours Macron. ñu ngi koy déglu bu baax a baax. Mhm. dafa dégager sax ay responsabilités pour ëllëg critique yi buy am. Mhm. wax na ko plusieurs fois dans son discours les chefs d'État africains yi ñoo ko décidé. sans aucune pression ñoom ñoo ko décider seen bopp. Mhm. ils ont fait leur choix ah ñoom ñoo choisir ak France parce que Macron ci boppam loolu xajul ci xelam ku ko bëggoon imposer France mu bañ. ci saa si ne ma bañ. Euh, garanti ne. France mooy garantie les pays de l'UMOA moi je trouve que c'est extrêmement honteux de dire cela xam nga dafa am colonisation bi ci bonne, a bon colonisation psychologique li ñuy def ci suñu bopp ñun dañoo gëmloo nous sommes médiocres dañoo gëmloo ne mënuñu piloter même même monnaie mënuñu ko une politique monétaire viable mënuñu koo def dañoo gëmloo lu bari li fi feeñ bari na te nit ñi doon ko bañ que mu taxaw fii naan génn nañu léegi ci conseil d' administration bu euh, BCEAO c' est c' est catastrophique dafa mel ni ay néew yu deewoon ñu suul leen di leen sulli France nekk suñu conseil d' administration bu BCEAO hein? du discours euh, panafricaniste comme ni ñu koy waxee ak yooyu c' est que y' a une réalité fondamentale mosuñoo moom suñu bopp alors est ce que tu as dit que ni France dafa am lu parce que sommes en li Macron en France, nous dafa en France, nous sommes préparé non la préparé Macron comme nico qui sommes Macron il est très jeune il est très spontané day wax France, nous honnête ñi nga en France, nous wax nous il était un peu sommes man France, nous sommes Macron bu nous sommes ni nous sommes ak di nous ay nous ndax xam na ni coow li moom day am affaire bi du seddee ah dana mën a dégager responsabilité pour wax ne ñii ñoo ko defoon. garanti garantie monnaie mooy lan France kan moo garantie monnaie euro ban état moo garantie monnaie euro ban état moo garanti dollar ban état moo garantie euh, euh, le yuan ban état moo garantie euh, le yen gis dafa am loo xam ne dañ cee war a génn ñun africain mm-hmm. dafa yàgg nag 400 ans. ba tey ñu melni ay xalé yo xamné 6e primaire lañ nekk mënuñoo sax am suñu indépendance déclaration bobu man de dama ci am gatché que la France va garantir dégg suñu monnaie li fi jëgé lu touti la nekatuñu suñu conseil d'administration deug la nekatuñu ci suñu commission bancaire commission bancaire moy lan c'est la police des banques mën nga ko tuddee noonu moy contrôler banques yi di xol ndax jaar nañ ci yoon wala jaaruñ ci yoon fofu sax France dafa teg tegu woon te je parle en connaissance de cause pour xam banquier yu bari di waxtaan di circuler dans le milieu bancaire yag nañ ko joy commission bancaire dafa mel ni buur bu tok gis nga directeur banque yu ndaw yi ah dañ lay wo comme kuy wo sa sa sa sa sa euh, numu mu tudd sa surga deng nga fi pourquoi tu n'as pas fait ceci pourquoi tu non la demee woon financement nous mën a financer suñu économie ndax lu ñu principe bu ñu teg ñu dindi ko les instruments yi nga xam financer par exemple économie mondiale pays européens yi ma xam ci lu américains yi tout le monde chaque jour c'est des milliers de transactions xam nga ci lan jël ay garantie bancaire yu jóge dans les plus grandes banques du monde di jox Euh, euh, un homme d'affaires. mais tey lan moo ñu tënk ba ñun mënuñu fippu. mais dama ne moo tënk dama ne lool sax mënuñu ci woon jot. loo te ñu ne fu mu jógee BCEAO ñaata xaalis la téye fii wax naa ko fi y'a trois mois ne man bu doon sama sago bu ñu ma defoon président dégg nga BCEAO laay njëkk a attaqué ak mécanisme yooyu mënuñu woon finance suñu économie yaakaar nañ ne loolu alhamdulilah dana wàññeeku ba ñu mën a financer suñu économie ndax du état rek mooy lépp. la nekk Allemagne yep mais c'est les entreprises privées la nek États-Unis la nek fenen ñun mësuñoo mën a financer suñu économie garantie bi itam liñ ciy wax mais 20 xam nañ nek je parle sous votre contrôle doyna pour garantir une monnaie ñun on était à 50 pour de nos devises ak yu ma xamul euh, la ca France am tay la jël cambisi cambisi mo ñi nga xam ñoo nek ci bureau de change yi laaj lañ lan mo nek ci changer monnaie da ngay le lu produit intérieur brut UEMOA ni ma ko 70 mm-hmm. de nos achats dégg vers vers l'Europe ak yooyu yëpp di jaar ci loxo France dégg nga moo koy organiser dégg nga assurer suñu convertibilité suñu monnaie moo assurer loolu yëpp yooyu ñoo war deñ moi je pense que fondamentalement sur des monnaies, mm-hmm. économie est garantie ak ay potentialités yoo xam ne nekk nañ ci économie ñu naan la nous sommes les pays les plus riches au monde nit ñi découvrir tuñu ressources dégg nga chaque jour nga dégg même suñu compte même comptoir d'opération yi nga xam ne delloowaat nañu ko loolu aussi doonul yow si sa gis-gis ni ñu la déggee ngay wax sànq ba tey loo xam ne mën na tax ñu ne ñun ñi ngi doxal suñu bopp compte d'opération boo xam ne euh, notre monnaie dégg nga n'est pas convertible par exemple notre monnaie n'est pas arrimée à un panier de devises. léegi wax na ko ci waxam. nee na yaakaar na ne sax BCE lañ koy yóbbu lu loolu nga wax léegi. BCE banque centrale. Mhm. Euh, euh, bu euh, nu mu tudd bu Europe. loolay lan. convertir manam con mënuñu ko wecci ak dollar tay mënuñu ko wecci ak. Euh, li nga xamné moy yang chinois mënuñu ko wecci ak. monnaie yu bari chinois yi le président chinois il y a pas 3 mois wax na fi si àddina yëpp di dégg France sax la attaqué ne leen seen loi coloniale yoyu dindi len ko ndax ñu mëna a liggéey ak les pays africains ah danaka lepp lo def il faut que ça passe par la France wa lepp lo def il faut que ça passe par la France garantie bi ñuy wax tay itam ah je dis que dégg nga état image la une ak ay réalité économique deng ça c'est inacceptable ñun war pouvons pas respecter respecter critères yi nga xamné ne nek ci adina bi ñëpp diko respecter 20% on garantit notre monnaie tay professeur Felwine Sarr def na ci ben article bu am doole euh, que j'ai vu dans les réseaux sociaux effectivement li moy wax ji waaw alors tay euh, gérer suñu monnaie est-ce que dafa fait difficile comme ni ñu fait pendant toutes ces années. ñu ko wé voilà. loolu la médiocrité lañu waaw que nous nous sommes médiocres que mënuñu ko yow mën nga la monnaie bay def recherche ci affaire monnaie yëpp mën nga gérer la jox nga gérer ko buñ la sa sago nga ah, nga liggéey li nga xamné ko liggéey mais expertise ñu ngi fi. les ressources humaines sont là pourquoi li ñëpp mën ñun mënuñu ko waaw euh, ci ci cadre boobu ngay xoolee gis nga moo ne dafa jaxasoo ba nga xam ne ba daanaka intellectuel yu bëri boo leen ci junjee sax tuñ ci tontu mhm. dañu naan c'est tellement compliqué parce que moo ne li ci nekk ah ci préjugé. li indi ah. complication est-ce que nekkul le fait que euh, dëkk yi nek Afrique bokkuñu langue parce que euh, colonisation bi dafa yàgg ba pare tubaab bi ba mu diviser tamit dafa yàgg parce que ñu ngi koy wax cas au Nigéria ak yeneen dëkk anglophone yi ñoom tamit du ñu nangu loolu. waaye ma euh, parité fixe dégg mhm. parité ba hmm? ci Paris da ngay dégg ay intellectuels yu mag. Mhm. dégg ay économistes yu mag naan notre monnaie est trop forte le CFA. pas mhm. dingue ñooñu bu doon seen sago kon un euro sa serait égal à mille deux mm-hmm. mm-hmm. ci économie yoo xam ne c'est totalement extraverti mooy lan mooy yow li ci ëpp ci sa économie da koy jéggaane xanaa une monnaie forte nga soxla wala une monnaie faible mm-hmm. ndax boo baree xaalis ah, booy jënd mu gën a yomb dëgg dëgg mais lañ ñu gëmloo loolu sax gëmloo nañ ñu ko ci suñu ay politique nga xool les puissances économiques yi nekk ci àddina bi ana ko ci am monnaie bu faible une exception à peu près Chine mm-hmm. parce que les dañ koy exporter waaw exportation mooy seen qui nu ñu gën toujours Trump dal le kaw ne leen monnaie bi c'est pas normal da ngeen ko war réévaluer mm-hmm. parce que c'est une économie ëpp na lii ak monnaie bi ce qu'on veut dire hein, un virgule euh, un égale six cent cinquante moi man maa ngi ci mm-hmm. ñi c'est criminel dégg ça ne se justifie pas. Mhm. il y a beaucoup de choses qui ne se justifient pas. dégg nga ci affaire bi en tout cas on a découvert mhm. Sénégal yëpp découvrir ko àddina bi yëpp découvrir ko réseaux sociaux yi ñoom bëgg a toj fi chaque minute chaque seconde mhm. qu'on n'a jamais eu d'indépendance que effectivement France moo fi nekkoon di déterminer suñu politique monétaire dégg nga moo doon buur moo doon bumi dégg nga looloo fi amoon tey dem na dégg nga ñu ne suñu